Capo alias Baye Mbaye moom nag nar naa toj li nga xamante ni nag moo di kaas yi nee na ndax nar na koo wax ki nga xamante ni moo di Mambu Góor Mambu Góor nag mooy comme li mu leen ko doon waxee sànq mooy ki nga xamante ni moo di Njaga Caam nekk maam si ki nga xamante ni moo di Juma Caam ndax nag ki nga xamante moo di Baye Mbaye ñëw na daje ki nga xamante ni moo di Daba Caam nar a wax ak moom si li ñu mel ndax nak nee dama dem ci kër yaay nga xamanteni modi di na ba taal pour wax ak mom waye nak mu may safal yo xamanteni lu metti la kon nak problème bi dama koy wax nga xamanteni ni moy mambu gor ta mom te xam na ne mambu gor momé nak bis bu yégué problème bi yaakaar na né dana metti lool ndax ñaar ñi nga xamanteni ni nañ ñu takkon sé bi ñaar ñu ñu ji jubawuñ ak nga ni moo di maam bu góor di jaga di di di di jaga njaga càmm te nag bu ko yëgee nag mën nañ né sey bobay dana tas ki xamanteni modi juma mi dootul demati kër gi nga xamanteni ni alkali di ku nekk ak sa problème rek nga xamanteni ni di ndey jaay neena tel teel daje nga xamanteni ni borom këram borom këram nga won parce que ñom ñaar actuellement ni divorcé wala sax mom dafa fay dal di ñëm dem fi nga xamanteni modi moo di pour borom këram war ko jëli waye nak avant jëli gogé nak borom këram and ak benen xali bu jigen nak di gundaat ndata di talax ba duggé ci ben auberge bañuy genn rek ak waaye loole nag la wolof njaay naan bato dem bato koste mais nag gaaw na trop bu fekkee ne nag sa soxna da nga ko takk si farata ak sunna bu demee tamit da ngaa war a dem sol ay daal dem jëli ko bu fekkee ne problème bi rek la ndax problème bu nekk dañ koy saafara bu fekkee ne nekkul yenn tooñ yi nga xamante ni yu garaaw la yoo xamante ni mënoo ko ko jéggal mën ngaa dem jëliwaat ko ndànk bu bañute ñëw nga indi ko bu bañee ñëw na nga bàyyi ko fa seen diggante daan daal di fay yem ku nekk dem dàq li nga xamante ni moo di sa wërsëg.